TDKC e 313 Touba Daaru Koso communication di kër gi teewoo lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable ak i accessoire wala mbirum électroménager moo leen di gunge fii ci académie Minane ci màggaluk Touba atum 2019 di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. alhamdulilahi rabbil di santaat Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw di ziare si di barkeelu si ci bis bu tedd bi ni ko sama bokki taalibe bi yëpp defee si di ñaanal nag tam sëriñ Muntaxa moom Cheikh Amadou Bachir yàlla yàggal ko fi te wéral ko lool ci barke sëriñ tuba lii mu jox ndigal sëriñ Amsatu muy awal yow min safar loolu sëriñ tuba ndigalam li day def ne suñu boroom bu la nangulee waxtu wu nekk lam digle moom suñu boroom moom la ñuy digle ba abadan moo waral ci biir loolu nga gis taalibe yi yëpp maase ci euh, dundal guddi gi ci ndigalam loolu ci teewaayu sëriñ am satu falaa jóge ni léegi doon ko siyaar ku fi ñëw danga xam ne lii sëriñ Tuuba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am rawatina nag sëriñ am sëtu ndax doomu Cheikh Sonia bu la sëriñ waa mooy maamam waaye sëriñ am sëtu joxate taalibeem ba la ko Cheikh Sonia bu tudde woon kon ñun buñ fi ñëwee di siyaare si dañ fi ñëw siyaare si waale mboolem ku sant jaxate te bokk ci mbaakol te sëriñ am sëtu doon sa waajur wala mu doon sa maam di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te barkeel ko ndax lii ku fi ñëw sa yaram dana daw ndax da nga xam ne surtout Serigne Touba yii yàlla baaxal na leen ñoom ñëpp te waxtu wu ne ci seen bëggu maam rek lañ nekk ci ci luy jariñ taalibe yi rek nekk nañ nekk kon nag ñuy ñaan yàlla yàlla yàggal leen fi ñun tam ñu yàgg fee ñëw ñun taalibe yi itam leen fi yaakaar ba tax ñu ñëw fi te xasida yi làmb lépp yàlla defal ñu ko li ma ciy tënk rek mooy xasida yi bokk na ci ay jagleem bi sëriñ bi nekkee Ceyeen Jolof buñ fa mosaan andi kenn ci dongo yi ba jébbale ko sëriñ bi dafay am ab diir boo xam ne day xam ne diw andi woon na fi doomam bay jekki ba yàgg mu laajt ne diw de andi woon na fi doomam nañ ko andi buñ ko andee bu ko jubee sëriñ bi day ree ndax daf daan man kat li ma ci bëggoon a def fekk naa xasida yi def ko ci ba noppi fekk dongo yi ku ñëw rek dañ lay daal di tàmbalee jox ci feggu yi jox la ci yi fi mbind yi fi ne ngay jàng kon nag yéen ñii ak nun ñii di jàng ci xasida yi nan rafet njortu ci xam ne la xasida daan def tey la ko dàq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi te TDKC 313 Touba ko su communication mooy kër gi faj seen jaaxle ci lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable waaye lépp lu jëm ci wàllu matériel électroménager waaw Touba Daaru su communication nekkee fii ci rue Escarpette angle Rafanel gérant bi di Serigne Abdoulaye Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Fall ak Cheikhouna Khouma bu ngeen déggee ñu naan spécialiste ci wàllu écran fii la fekk baax rawatina nag bépp pièce bu ngeen bëgg a changer yéen réparateur portable yi wala jumtuwaay yi ngeen di liggéey jëlee ñoo ci mën keneen ku dul ñoom kër gi spécialiste lañ ci lépp lu jëm ci wàllu écran mën ngeen a jokkoo ci numéro yi ngeen di gis suñu ñaareelu place mi ngi nekkee fii ci dakaar salle de vente rue Diop angle Escarpette waaw lu jëm ci wàllu accessoire portable wala électroménager bàyyiwuñu dara moo xamuy muy écouteur chargeur wala lépp lu soxal portable wala électroménager moo xamuy muy télévision offeur MP3 dernière génération iPod bultuuf waaw jokkoo leen ak geran bi di am ñu xuma ak Serigne Khadim xuma wala ba tey ngeen ñëw fii ci suñ ñetteelu place bi nekk ci Petersen avenue Sénégal moom itam lépp lu soxal wàllu portable ak i accessoire am wala électroménager mën ngeen ko fay fekk xool leen yii bagage yu taaru da ngay xool ba fa sa bët yam geran bii di Khadim Ndiaye ak bàcci xuma mën ngeen a jokkoo ci numéro yi ngeen di gis TDKC 313 ñooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murid mu yàgg fi lool te ànd nu jëm màggal gi mooy sunu ndam jërëjëfe màggal gi